chance bonne chance tey vraiment nag baal leen ma baal leen ma ma ne Mambay demal maag Mambay ñoo ànd fii ñu jëtoon 1500 ñeneen ñi bloqué naa leen fële ma ne ñu jëtoon 1500 ñu ñëw ci commune bi ànd ak monsieur Mambay Niang mais pour bañ ay affrontement ak ay coow ñu naan Couture ak Zahra Iyane Thiam ñoo fi doon xeex man yooyu du ma ci man damay dox proximité proposer un programme suñ ma falee ñu xam ne man lañ fal suñ ma falu ma xam ne loolu du sama njiglaay te moom it buñ bu proposer programme buñ ko bu buñ ko falee ñu xam ne population yee ko tànn fii kenn moomu kenn ñu ñëpp a bëgg defar dama bëgg ngeen xam ne jarul coow jarul xiiroo jarul ñaayoo ñun ñii nekk te dellu si xamante nañ ne fii ku fi amul frère am na fi cousin bu fi kenn nekk di coow sama mbooloo mi ne ñoom ñëpp a ne taxaw à 300 mètres ma ne leen bu kenn bougé kenn bougé kon na ñëpp def noonu seen militant yi buñ nangu kenn du ñu rax du ñu yàqal di lancé appel nag candidat yëpp ku dajeeg sa morom na nga saabonteeg moom 24 janvier incha allah bu jotee yéen ñi ku nekk day delluwaat ci ay activité baal ma dafa am ñu ma war a rencontré fekk am benn mauvaise intention